mais il était candidat. Il a été euh, emprisonné, mouru prison. Mais aujourd'hui, tu as ces vidéos UDEM. Il, il, communique avec son peuple à travers des vidéos. C'est son avatar, moi, moi, Edem. Moi, moi, tu vois, c'est le cas Karim aussi. Mais fof le nindi toll, fof le fof le jamono toll. Mhm. Alors jamono bu tollé fof nak système éducatif devait adapter aussi jamono pour avancer non. Mhm. Donc pour revenir au cas du brevet. Mhm. Euh, ñu ngi euh, vraiment di euh, ñaanal suñu gone yi nga xamanteni ñom ñoy tay ji wara war parce que examen ku xam examen Sénégal xamné examen Sénégal lu metti la tambalé ci entrée en sixième brevet ba baccalauréat lepp dafa metti euh brevet mom moy pas bi nga xamanteni boko boo accompliré daf lay duggal lycée. Euh, lycée boo lycée après tremplin la pour nga donc à partir du brevet c'est tellement important que c'est à partir du brevet que normalement que l'enfant doit savoir son futur métier ou bien le parent doit préparer son enfant à son futur métier au plus tard à partir de la troisième parce qu'à partir de la troisième tu dem am série si tu veux être médecin si tu veux que ton enfant soit médecin tu te souhaites mais tu ne peux pas toi travailler à ce qu'il fasse euh, la série L par exemple tu vois un peu parce que vous vous choisir à partir de la troisième donc vous la série L éliminer la trajectoire tu vois un peu donc c'est à partir de là et c'est important donc sur examen solo la carrière trajectoire de yi euh, ñu borom mais également les parents yi système éducatif bi euh, euh, examen téléphone parce que xamna liñ ci les parents sont responsables. ah oui les parents sont responsables l'administration est responsable euh, les les les les on appelle ça les surveillants dans les salles sont responsables c'est une responsabilité partagée donc il faut que ku ci jouer ce rôle euh, à fond ñu avons maintenu loolu la bu ñuy taxaw ci portail bi sax yone ben amna société yo xamante maintenu man euh, dem naa fa loolu sax sori na même présidence de la république soo duggee dañuy jël sa téléphone. Mhm. dañ koy jox benn numéro def la benn petit numéro yow nga am sa numéro booy génnaat yow booy ñëw numéro boobu nga joxe ñu dem direct bu fekkoon million de téléphone ñoo fa nekk on connaît le numéro numéro bi la ñuy jël delloo la sa téléphone nga dem sa yoon y' a pas possibilité de confusion ça on peut l' appliquer à l' entrée des des des centres d' examen. donc loolu daal laa bëggoon ci question question boobu. Mhm. loolu la ma inspiré euh, mais vraiment di leen souhaiter ñoom ñëpp euh, bonne chance. merci beaucoup Adama euh, sa jàngat ci li nga xamante ni moo di examen yooyu xale yi dëgmal euh, jëmale ko ci BFEM bi euh, ci xayma ñu toll ci cent quatre-vingt-dix mille candidats. bu je pense que foofu euh, jàngat bi du du yaatu wala bok du du jël temps liñ ñu ciy def rek mom moy ñaanal leen suñu borom may leen ñi ñi nga xamanteni ñom ñoo wara réussir suñu borom yombalal leen ko bu baax a baax. Mm-hmm. puisqu'ils sont 191362 plus de 190000 donc je pense que tay tey euh, mënu ñu réussir andoo comme j'ai l'habitude de dire rek. li may mm-hmm. wax suñu suñu élèves yi loolu laa leen wax chaque fois bu doon examen bi ñepp dañuy réussir duñ def examen dañuy ñëw rek. Mm-hmm. Euh, jox leen jox leen ñom ñepp diplôme ni leen réussir kenn. ça veut dire que examen la boo xamante ñi ñii dañuy am ñi ñàkk et aussi ñoom ñu xamé ko

baccalauréat bi rek war nañ ci mën a yeewu élèves yu bëri yi nga xamante ni en l'occurrence Kaolack Fatick ak foofu noonu yëpp nga xam ni am na élèves yu bëri yoo ni ajourné nañ leen à cause des téléphones ak yu ni mel buñ ciy sukkandikoo rek je ne pense pas que sax jarul ñuy dem ba ci buntu bi ñuy jël téléphone di leen ko tegal mun nañ ko bàyyi seen kër yi lu ñu soxla yëpp je pense que mi ngi si bopp yi jàng nañ ko parce que loo jàngul ba egg ci centre d'examen bi doo doo ko jàng à moins que nga bëgg def li nga xamante ni moom tricherie je pense di leen encore une fois une une très bonne chance

gis euh, lenn la si rek euh, mooy que responsabilité comme Nicolas ko Lamine waxee euh, c'est partagé man du ma wax ne élèves yi ci responsable yi lañ bokk mais c'est c'est partagé entre les parents et l'administration comment parce que d'abord pour que nit ki uti métier yar moo tax ñuy jàngaloo nit yar daf cee bokk léegi yar bi nag dafay dafay nekk ci diggante bi boo nekkee ci kër gi parents yi ñoo la nara a yar buñ la yóbboo ci école bi dañ la confier ñoo xam ne ñoo lay yar jël la en charge pour man affaire de nangu téléphone yi wax jiñ ciy wax yëpp à chaque fois du ko jar parce que déjà euh, euh, parents yi suñu jëlulee ñu ci bari mën na nekk comme ni nga ko waxee analphabétisme wala leneen ak leneen euh, waaye lu mu ci mën di doon impliqué ci sa doom sa doom boo demee ba duggal ko école war nga mën a impliqué dugg ci jàngam bu baax pour nga koy mën a surveiller su loolu amulee ña nga ko confier aussi war nañu def seen rôle bi nga xamante ne moom moom lañ leen chargé mooy que xale bi mu ngi ñëw bu parents yam bàyyiwul xel yow da nga nar a bàyyi xel xale bi di vérifier la ndax lan lay def ba bu jaree rendre compte parent am nga rendre ko compte su ko defee mu ci mën a bàyyi xel mais ñaar yooyu yëpp dañuy gis ne dafa échoué ko tuddee inconscience wala indiscipline waaye ñi ko war a mën a tey jàpp ci ba nga xamante ne yooyu yëpp dina dem ci ñaar yooyu la muy parent bi ak administration léegi affaire euh, portable yi ñuy yóbbu école pour man wax ji yëpp du ko doon jar parce que tey su fekkee ne salle d'examen nga dem élève bi tey déjà balaa moo dugg ci centre bi war nañ ko vérifier même ñu ko vérifier à euh, vérifier wul à l'entrée bu duggee ci salle bi muy dugg déjà dañuy ne sa sac fële la war a yem donc bi ngay vérifier élève bi bu yoree téléphone war nga ko xam nga génnee ko dugal ko ci sac bi ñu dem teg ko fee après loolu jarul leneen euh, pour man parce que tey euh, téléphone bi dugal na ko warul woon dugg loolu benn point la beneen point bi war a am nga xam ne mooy débat bi mooy ndax utiliser na ko ba mu toogee saalam di jàng léegi su demee ba war koo mën yor ci biir salle bi di jang lolu responsabilité bi ci surveillant bi la parce que am na ay surveillant ci biti comme am na ay surveillant ci biir te salle d'examen du ben surveillant la mën am donc kii ñëw nga war a mën a jël saagam visiter ko war nga ko moom visiter ba lu mu àndal loo xam ne war nga jàpp ne tricherie la nga nangu ko ci moom et puis euh, on passe à autre chose mais après dañ koy jël def ko détail yoo xamante ne rajo télé yëpp di ko wax mënoon naa ñàkk problème buñ mën régler la euh, euh, vite fait mën comprendre ñenn ñi lay wax parce que la plupart am na ci benn exemple bu ñu joxe mënuñu ko bañ à Kaolack par exemple nga gis koo xam ne dafa jóge dëkk ba ñëw defi examen ci centre ville bi su xëyee amaana lii dal xelam mooy yóbbaale téléphone parce que ñamu bàyyee ñoo ngi xool ba xam nu examen yi demee ak li yëg li léegi loolu responsabilité lay doon ci administration boobu nga bu duggee ñu jël lépp loo xamante ne war na koo mën a yor motrice teg ko foofu su jàngee ba génn ñu daal di koy jox mu ñibbiwaat pour man loolu la à part loolu euh, lu ñuy mën def mooy souhaiter leen une très bonne chance ah ñoom ñëpp euh, jàng nañ ba année bi jeex examen ñun ñëpp jaar nañ ci xaw naa metti c'est da ngay jaxasoo nous ah ñu dalal seen xel bu baax ñu dem def rek la ñu ñu daal sa chance nga ci ñu et bonne chance à eux. et bonne chance à eux euh, tey bu euh, même cas yi dafa répété waat ak euh, d' sax ñi nga xamante ni nañ centre d'examen examen mu nekk lim takku lan mooy doon jeexintal bi am chance reprendre ci session de rattrapage wala dañ leen tout bonnement alors, j'ai agité depuis la dernière fois cette question de du rattrapage je pense qu'il faut qu'on apprenne à sanctionner euh, sanctionner c'est soit donner un avis favorable Tidara, ou euh, voilà, Safanbi. c'est-à-dire sanction de lu de rek sanction euh, Bois de lu baax ñu comme on dit nous, defee Safan. nous, ñu euh, bii ñoom xam nañu que tere nañ ko parce que bu amul won précédent sax wa mais amon na précédent ñëpp xam nañ ne amon na fi doon coow lu rëy ci réew mi ñooñu ñu dañ leen a alors ni def ñi ci toppaat ñu baalaal leen ni ñu baal leen ñeen ñu baal leen c'est pas être méchant mais c'est faire preuve de rigueur dans la gestion scolaire nit yi da nga leen di jàngal parce que njàng dafa war a ànd ak rigueur ça bu fekkee ñii def nañu lii ren mais ñi nga xam ne déwén am na ñoo xamante ni dañuy toog ñiy jàng ñun je me rappelle ñun bañ naan def ay terminal mais dañu doon fanan ci classe yi ñun lycée dañ naan fanaan am na période boo xam ne bu buñ ci tàmbalee euh, c'est-à-dire à partir du mois de mai ñun presque classe lañ doon fanaan da ngay wàcc 18 heures dem ñibbi sa kër euh, reer ba pare ñëw lycée fa la ngay nekk fa ngay nekk fa ngay nekk fa ngay nekk ba 4 heures du matin bu fekkee ñi nga xam ñun ñi nga xam dañ daan nekk ci ay foyer yooyu war a tàmbali yenn euh, coow yeeg yooyu da koy traverser sax far da ngay jàng ba pare ba 4 heures du matin tu obligé nga xaar parce que gars yi dañuy ñëw âgé ay 7 heures wala fa ngay nekk tu vois un tout petit peu donc l'affaire affaire bi noonu la war a dem il faut ñu sanctionner ñii bu fekkee baal nañ leen dina am ñeneen ñu koy defaat déwén dinañ leen baal il faut ñu sanctionner leen parce que c' est ça bu fekkee sanctionner leen defuñu bac non waxuma sanctionner pour une année ils doivent rester au moins deux ans yoo xam defuñu bac buñ ko defee benn yoon mais keneen dootul jël risque def foofu. Mm-hmm sanction bi dafa war proportionnel à l'ampleur de la faute. Mm, la faute mm. faute bi dafa grave mm-hmm. dem bac di tricher dafa grave. baccalauréat lañuy wax. c'est le premier diplôme universitaire. dafa grave dafa carré. donc nous nango nini nit di ko tricher mais après on va avoir des ministres qui vont tricher des présidents de la république qui vont tricher euh, où est-ce qu'on va donc il faut apprendre à sanctionner et pour moi la sanction aujourd'hui c'est de les suspendre ñu xamné li lii defuwul un rakk yi di ñëw xamné ne defuwul duñ ko def mais bu fekkee ñëpp nee nañu baal man dégg naa ay professeurs sax yoo nañ leen baal ay membre de l'administration yi oui, d'accord grave na trop mais nañ leen baal je suis bien d'accord c'est bien gentil mais il s'agit pas de gentillesse dans cette affaire-là il faut de la rigueur man loolu moo ci sama xalaat c'est pas être méchant nak malheureusement mais il faut ñu xam suñu a génne mais am na fi ay sanctions de 5 ans mm-hmm. am na ay sanctions de suspension de 5 ans hein. donc 2 ans c'est c'est rien par rapport à ñoom li ñu def peut-être je j'ai pas connaissance en tout cas qui qui xam a ko avec son téléphone mais le fait juste de transgresser la règle qui commandait de laisser les téléphones en dehors du centre le fait d'avoir l'audace de transgresser cette règle là mérite une sanction pourquoi nous l'avons des mais où est-ce qu'on va faire que dañuy balles des fautes aussi lourdes nous len di l'administration va fait def pris après nous l'avons ensuite nous l'avons des balles, etc. Nous devons former nos enfants. Nous devons apprendre à nos enfants euh, d'avoir de la rigueur par rapport à eux-mêmes, mais par rapport à la société. mais vous faites que def loolu nga baal leen lu affaire grave Voilà wala nous nit ñi gravité situation mais c'est extrêmement grave on on parle de baccalauréat ah, faites que baal nañ leen nag ah, bon man de xaw ma ma je de façon man mais attends je pense que. alors vous parliez tout à l'heure de de Dara. Euh, ministre bi mu ci def ay jéego. Euh, yan mécanisme nga jàpp ni war nañ ko mën a samp euh, pour daara boobu ñu dugal ko ci système bi éducatif. mais loolu bu yow da ngay jël sa xale mu am ñaari at ak genn wàll nga yóbbu ko école tubaab yi mais parallèlement am na fa um, ñoom maam lu ñu doon def xale bi buy tàmbalee jàng wax rek mm-hmm. ñu dugal ko ci daara ji mu nekk fa. mais xale boobu day nekk ci daara ji mais est-ce que ñaar yooyu dafa antinomique est-ce que ñaar yooyu ay contraire la ñu non du ñu ay contraire deuxièmement euh, yi nga xam dafa jaar ci école boobu dem ba euh, am li jaaso yi mu war a am yépp dem di liggéey kii nga xam ne jaar ci daara yi dem ba am ca tari ca lam ca war a tari yépp dem am liggéeyam lan moo leen différencier à part làkkum tubaab bu neex amul dara lu leen différencier on a des exemples dans ce pays là Yo xamanteni ni ci ñaari école yooyu lañ jógee ñi ci daara lañ jógee laaluñu école tubaab ñi ci école tubaab lañ jógee laaluñu école eh, laaluñu daara lan mo leen woutalé on a des milliardaires qui sont issus de ces deux systèmes là. Mm-hmm. où est le problème la finalité de l'individu, individu ku mu munti donne c'est la recherche du bien-être loolu ngay wut est ce que ñaari système yooyu mënuñu ko joxé est ce que tey jii mënuñu boole ñaari système yooyu ku jóge fi dem fi ku jóge fi dem fi et l'histoire a montré, notre histoire en tout cas en tant que Sénégalais, nous a montré que boo demee dara sax sa bu Dara, mais attends bis bu on même bu demee dabe ji sax école tubaab mais mais gars yi duñ ko seen sax. Mm-hmm. ñun de bi école primaire nañu euh, suñu grand la sax wax parce que ca koñ ba suñu grand école mais école parce que dafa ñu daf dafa dugg C2 euh, sax euh, deux mois ñu yóbbu ko CP deux mois mu dab c ci même année bi ci même année bi moom def na classe dab ñu c mais moo ñu magoon moo ñu ëppoon ko ëppoon parce que mag la mais attends waa ji bu leçon bi lu mu yaatu yaatu mu mu <laughs> cest loolu day euh, valeur système boobu système boobu bokkuñu nag nañu jàngale mais mën nañ leen a intégré bii ci bii li ci def parce que am na jonction boobu am na ala kulli alin li ci def système B, ñu jox leen fulla ak cër ba jox système tubaab bi loolu rek moom mooy manqué amut leneen ah loolu ci manqué la fay bi nga xamante ni tey dans le quartier ñu jox salaire ba nga xamante ni moom jox enseignant bi yor classe tubaab bi ñu jox ko euh, sëriñ daara bi fullaal ko nañu fullaale kii bi sëriñ daara bi itam xam cër boobu fullaal boppam ko système bi loolu la donc pour man amul benn problème question de euh, volonté politique la hmm. le président de la république munoon na jox ndigal que ne déwén effectif day effectif parce que amul une difficulté bu ci vraiment sur cette question là il y' a même pas à s'attarder. Euh, dañu ni école élémentaire yi am ñom maître coranique boo da fay ñew maître ah, arabe. wala ah, en réalité. en réalité Sénégal Sénégal. Euh, même su que ñi nga dañu ci euh, en tout cas par rapport ak nombre bi nga islam amna na ko ci dañu war a tenir compte ñaar yooyu. waruñu mun a wax ne tey jii dañuy du intégrer daara yi. Mm-hmm. parce que bu ñu wax dañuy intégrer daara ñi ngi xalaat njàngalem euh, diine islam mais am nañ ci ay ñoo xamante ni dañu jokk ci beneen diine. Mm-hmm. est-ce que ñooñ tey jii sóoraale nañ leen ci système bi bu fekkee sóoraale la dañ leen war a sóoraale parce que bu fekkee euh, euh, Pato Théodore Adrien ay doomam. bu sañoon tey jii la ñuy jàng catéchèse boobu ñuy jàng ci seen kii ñu jàngal leen ko seen école yi tey jii catéchèse boobu école école école Kër Labbe rek ñoo koy jàngale lu tax école publique bi du ko jàngale parce que école publique bi am na ay doomu euh, chrétien ñu ci nekk donc xam nga. yombul lu moom dysfonctionnement la yombul trop nga gis. école publique non loolu moo indi coow boo tax ma ne volonté politique la. am na affaire boo xam bu jotee da koy décider nga ne damay tàmbalee lii comme munoo tàmbalee ñaar mi nga damay tàmbalee lii mais. lépp coow li coow yi mooy nañu fullaal njàngaleem diine parce que ña ñàkk diine baaxul ci réew baneen luy xew Sénégal fa muy xewee ak ca ña muy xewee seen ñàkk seen seen rafle diine moom moo koy indi diine bu duggee ci yow bu nekkee ci yow am na loo xamante ni mënatoo ko def jomm nga ko def diine bu nekkee ci yow buñ la ko jàngalee toxantal la ko jàngal la ko toppale ci am na loo xam xamee doo ko def donc bu loolu ëppee ci réew mi ñuy xalaate noonu mais réew mi ci yoon lay tegu loolu mooy loolu prudence bi xam naa ne euh, ragal lag ñu ne non lu tax deful lii lu tax nangam nangam et cetera. Mm. mais loolu xam nga euh, ragal du jàmm guy. Mm-hmm. dafa am loo xamante ni volonté politique nag boo déggee ñu koy wax fit da ci ànd. am nañu yaakaar en tout cas que nguur gu bees gi tegu dina ci def ay jéego yu yaatoo yaatoo yaatoo même bu fekkee mënu ko décider mais en tout cas dina def jéego yoo xamante ni dañu xam ne suñu doom yi ñu ngi leen di jàngal diine ca l'école ba parce que comme ni ko madame waxee tout mooy euh, njàng njàng njàngale mi dafa am noo xam ne dañ ko war a dañ ko dañ ko ni war a saytoo euh, école ba la euh, kër ga la d'abord ensuite école ba mais avant école ba mbedd maa ngi ci diggante bi mbedd mi tey jii doyatul dootul ñett yooyu rek beneen pôle bi ci des mooy xarala yu bees yi donc tey jii système éducatif yi

mais buñu ñu def li rek bàyyi la dé sans def djégo ci lolu euh, ci côté bobu je pense que dinañu am ay ay problèmes et là c'est le rôle du du non pas du ministre de l'Éducation, ministre de l'Éducation, mun am xalaat bi mun na ko jaaral ci mais volonté président de la république mu naan hey man maa la tabb pour li li la bëgg nga doxalel mako lolu moy définir la politique de la nation <laughs> mhm. politique de la nation nak bu fekkee lolu politique de la nation la ci la bok dañu koy appliquer mais fekkee dañ koy wax nii rek te bokkul ci politique de la c'est-à-dire que le président de la république affaire bi ñoru ko ñor goo xam ne dóor na ci table yi wala bind na ne diw maa la tabb pour lii lii dafa bokk ci sa émission dama bëgg dans deux dans deux ans lii am loolu mooy volonté politique après moom yoonam nekkatu ci joxe na ndigal li ba pare kii ñu ko jox dina ko doxal waaye bu fekkee joxewul ndigal li kii ñu ko dox mun na ñëw ñu ko dégg mun na ñëw indi bokk ci show bi rek ne damay def lu bees et cetera gars yi dugal ko ci benn créneau mu ne aywa coowal daara yi kenn waxu ci woon naa coow coowal daara ndax ma indi lu bees. indi lu bees non mais ci coow lay yem. alors ci coow loolu nag la ñuy tëjee xëy na euh, suñu ponk bu njëkk bi euh, nga xamante ni le ministre euh, Guirassy dafa am ay actes yu mu signé mu indi coow ndax actes yooyu problème la woon ci système bi par rapport ak enseignants yi. bon ça dépend ci yan acte. ay arrêté je pense d'avancement ak on a parlé juste d'act wa xam nga acte bu généralement bu ko jàngalekat yi wax mu ngi déwét carrière professionnelle mhm. seen avancement avancement c'est-à-dire nga nekk nga nekk euh, PS euh, war a changer grade mhm. euh, nga nekk PM nek ci ben grade wala changer grade ci corps bobu nga nek instituteur wala changer grade ci ci corps bobu et cetera yoy ay acte la yo xamanteni euh barana niveau euh, amna ci bo xamanteni yow euh, da ngay euh, comment on appelle ça da ngay jógee par exemple amna ci nu koy tuddee encore les contractuels xam nga amna na ci xam ay décisionnaires lañ décisionnaire nag bu féké dang ko nek ken titularisé gu la manam nga am décision rek nga am dafa am lu ñu tuddee acte de titularisation acte boobu nak souvent bu ñëwulee dafa am ay incidences financières c'est-à-dire que da ngay gis yow mi nga xamanteni tu es titulaire euh, ci même corps bi man duma titulaire ci grade bobu euh, alors différence salariale bi da fay yaatu moo tax souvent ñuy wax ne dañu acte yi su sama acte signé guñ ko wala sama acte génnagul c'est ça fofu lañuy waxé mhm. bu féké euh, bokk nañu galan galan bi ñu koy déggee mhm. alors loolu nak bu féké ministre bi signé nako daf ci amone yo xamé da fay dajaloo dajalo go xamanteni da fay jéggi dayo parce que ñun ñi nga xamé dañu bokkoon ci corps de contrôle enseignement souvent dañu buñu buñu bu fi nekkee dañuy suñu ancien protégé dañ lay envoyer lay wax né man ba légui suma tur yow yaa ma gisoon CAP mais ba légui man gisaguma suma euh, avancé gu ma et cetera doo ma ci jappalé fo né yow mën nga ci ci dara naturellement. parce que ça c'est une décision ministérielle mais mooy jël arrêté pour lolu mais pour des raisons financières ou je ne sais pas quoi à quelle autre motivation souvent dañ don dajalo ba nga xamé tu peux faire un examen nga am ko ren tu peux rester 5 à 7 à 10 ans doit avancer. quelque chose qui devrait être automatique. mais automatique examen tu as A ko mais normalement du yéex yéex déwén war nga sa CAP bo war na dugg ci sa ci sa gafaga parce que incidence financière la am mm-hmm. Mm-hmm. donc yoy moy indi donc nous nous en félicitons bu féké c'est vraiment effectif parce que amaguñ ci parce que ñun duñu dégg ti radio rek xam man dama xaw a compliqué quoi <laughs> c'est normal man duma sétane seetaan site wala ma déglu ki wala ma ma ne non il faut amna ay moyens yo xamé ñun ci lañuy euh, informer euh, pour ces genres de cas là euh, c'est une très bonne décision

jàngalekat boo xa boo tardé dix minutes boo ñëw ñu ñu dugg ñu dugg ci élèves yi la waroon kii bi nga war yi nga waroon yore dugg mais bu ñu la gisee nga ñëw parent boo tardé danaan mais xool ma kii rek. vraiment xale yi bu tu vois un tout petit sanction boobu nag moo gën a métti ci lu jàngalekat yi. sanction administrative. <laughs> déedéet du administrative sanction populaire la. populaire waaw. moo gën a métti ci li jàngalekat yi dund. en tout ñi nga xamante ni. Mhm. amuñu jikkowu wu tardé wala di absenté wu. buñ ko defee ba dégg lool ci mbedd mi rek seen àdduna day waaj a tukki.